polis moo mën na regle situation yi nga xam ne nii mooy am ci dëkk bi mais bu ñu naan dañuy xool ay nit ak nit wala ñu sol ay tani rek naan nañ nañ leen régler loolu dëkk bi loolu mënul régler dëkk bi baax na kon ñu ngi léegi bàyyi rek ma dem. yow da ngay da ngay sensibiliser rek. asalaamaaleykum yaa koy doon. dox guddi mënuñoo dox bëccëg ñun daal tiit nañ loo mën a dégg nag lan waxoon rek peenda moor ko rey ñu rey feeg amu fi. rey du fi jeex Touba nag moom léegi ñëpp a ñëw ñëpp a ngi fi léegi dox dajale rek la kenn xamut kenn xale yi nañ toog waajur yi nañuy xool seen i doom di leen waaye di toog ku la tàggu na nga xam fam jëm waaw waaye maa ngi dem te ñëw rek ay réception wala ay jàng lu man di doon waajur da ngay téye sa doom bu amee borom këram bu ko neexee muy ànd ak borom këram dem waaye tant que amu ko bàyyi ko ci biir kër gi waaye maa ngi dem bërëb sànga maa ngi dem màggal maa ngi dem génte maa ngi dem céet koy def rek gàll léegi. Touba lu mel nii. déedéet baaxoowul ndax ñun Touba woon jamonoy sëñ Fall mu di nu ba nag ni mosuñu koo gis man ñu ku nañ gis na metti na foo ko takk rek paase na ko. kilifa yi. ah kilifa yi sëñ Mountakha mu dimbale nu ngir yàlla wax ku rey ñu rey la. loolu daal la bëgg ñoom. ndax dëkk bi dox dajala ndax sëñ léegi ñiy def tooxi doona dëkkunu fi dañ fee joox waaye ñi nga xam ne juddoo nañ Touba yaroo fi màgg fi am nañ jomb jombu am nañ lu bari lu ñuy rus man ba ci man ak sama njaboot am nañ lu ñuy rus